dara bañ la cee raw moom Juan Branco mi ngi xam le ne daa am ab délégation boo xam ne daa jóge ko réewum France diggante Champs-Élysées ak Quai d'Orsay ñoom ñu daal di ñëw fii ci réewum Sénégal cinq jours laata ñu daal di amal li nga xam ni moom moo di procès bu Ousmane Sonko ak ma mbay Niang lan lañ fi doon def si lan lañ doon waajal mbaadu ñoom ñoo conseiller république bu Sénégal ngir ñu daal delloo Juan Branco ci ab dëkkam ñëpp xam nañ ne fee ci réewum France Sénégal bëri na ci sax ñoo xam ne ñu ngi naan ragal Juan Branco ak aay gi mu aay moo waral ñoom ñu daal koy delloo ndax fee sax ca réewum France Emmanuel Macron bant bu gudd la koy laalee. waaye nag mu teg ci moom Juan Branco ne moom dàq nañ ko mu ñibbi waaye am na keneen koo xam ne daal di day ñëw nekk itam ab avocat et pourtant nguurab Sénégal tëjulu ko ay buntam. ci mënti am lépp dina leer moom Juan Branco mi ngi xamle sax ne dina amal ab point de presse du ñàkk ne ci loolu lay daal di addu indi ci ay ay révélation mënu cee ñàkk moom Juan Branco fas yéene def équipe bu AGT News dinañ leen ko toppal ngir saasu ne ñu leen ciy jox ay xibaar yu wér te wóor